nit nekk na fi ñuy euh, police yu Brescia ñu ko ñu ngi koy waaj a tëj mu dugg ci ron oto sàcc woo ma téléphone ma ne ko jox ma sa turu yaay ak sa turu sa turu papa mu jox ma ko jox ma seen numéro man maa woo seen yaay yaayam ak papaam papaam bi ma jox ko dog yaay ji ma jox ko dog ma ne ko maa ngi nii ci dog boobu ci kattanu yàlla. may wird may wird may wird bi may am juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn la ma woowaat mu ne ma sëñ bi mu ne ma naan ma ne ko barke rasulillahi téeméeri sëriñ yaa leen man jébbalu naa ci yow àdduna ak alaxira maa ngi fii hôpital ah, kii quartier Brescia ah mais maa ngi ñu ngi ànd ak sama mag ñu ngi ñibbi. di ziar ñëpp di leen masoo bu baax a baax a baax gis nañ ni depuis lool ñun ñëpp ñu ngi àndandoo di xeex tey comme mbiri nii la deme parce que tey dañ ni lépp lu am rek dafa fekk suñu boroom programme woon na ko bu yàgg alors ñu nangu dogal bi gis nañ ni ñun ñëpp ñu àndandoo woon di xeex xeex bi comme nii la demee ñu santaat suñu boroom bu baax te nag ñu bañ a bàyyi ñu gën a jàpp te xam ne ñun ñëpp ay sénégalais lañ Sénégal sunu réew la bu baaxee ñun la baaxal su bonee ñun la bonal donte actuellement loxo yi mu nekk gënaluñu mais lépp ñu dal dafa bëri ñoo xamante ni si dañ ci jàpp ba mu dal donte mag yi ak ñi mu àndal ñoo ne ci bopp bi mais juge Kandji également daf ci am part de responsabilité et que tey ku ne xam na ni. juge bi moom mu ngi regretté li mu def parce que ku seetaan bi mu koy joxe résultat yi il n'était pas à di wax di juum français bi doo sax comprendre yow finalement mu leen la kii nii mu ngi joxe ay résultats mais malgré lui franchement man damay yaakaar nit boo nekkee ci dara dañ ci war a roy ñi nga xam te ne exemple lañ déglul ku mel ni Kéba Mbaye Demandons-nous chaque fois que nous sommes tentés d'avoir un comportement non éthique ce que serait la vie si chaque faisait comme nous. kon gars yi ñoo ko déggandoo kenn ku nekk bala ngay def dara war nga xalaat tey li may def nii est-ce que bu ko ñépp doon def tey àdduna nan lay mel ku ne war ngay xalaat loolu bala ngay def dara parce que nit mën nga jël décision. peut-être que arrangé na la ou bien mën na la bañ a arrangé mais dañ la forcer pour nga def ko mais avant nga koy def war nga xalaat ñi nga xam te ne après ñoom ñoo la subir les conséquences ce qui en est sûr le juge lui-même regrette ce qu'il a fait parce que parce que tey ku ko gis démb ni mu doon waxee xam ne nekkul woon à l'aise et tey moom juge Kandji ak ki nga xam te ni moo jiite daaf ñoom ñëpp dañu retraité ñu maintenir leen donc ñooñu je me ñoom amatuñ dara loo xam te moom la ñuy prouver donc je peux dire seen wàllu liggéey seen wàllu wéy na alors ñooñu am na fooy jaar ak ñoom boo wax dañ koy def bien avant résultat yi di génn koo dégg mu ni la ah juste candidat au moo ci moom yaakaar parce que mooy ki tëjoon Khalifa Sall mais tey bu lépp weesoo gis nga la prison de notre conscience moom moo gën a yéeme sax prison yi nga xam te moo existe réellement nit ku tëdd xalaat ni man mii kay tey li ma def nii lor naa ñu bëree bëree bëri xalaat boobu dalay topp abadan moo tax nit ku nekk war nga mën di essayer d'être quitte avec ta conscience heure boo tëddee mën a nelaw ba yandoor parce que lii àdduna la day jeex ëllëg day am te suñu borom ba àtte yéenewuñ kenn lu bon mais dafa am yoo xamante ni nit bala nga koy def da ngay sóoraale ñi nga xamante si ñoom nga jiite mais ku ne gis na ni élection yi dem damay dégg na ñenn ñi naan sénégalais yi amatul lu ñu wax parce que ñoom ñoo fi tànn Macky Sall teg ko fi ma ni déedéet Macky Sall moom moo ñu forcé boppam mais ku ne gis na jour vote bi après résultat yi ni mu demee mënuñu comprendre ngeen nekk juróomi nit cinq candidats di jongante benn mbir ñeent ñi bokkale benn PV ñoom ñëpp yow kundum nga yor PV bu bokk te bi ñee yor ba pare nga ne yow yaa gagné te ñee PV yi ñu yor ñoom seeni calcul ñoom ñëpp ñoom ñeent ñëpp deuxième tour lañ gis donc loolu donc doy na ku ne xam na ne mbir mi jaaru ci yoon am na yeneen ak yeneen yu bëri yoo xamante ni xew na ci biir élection yi ku ne xam na ne également élection yi jaaru ci yoon parce que mënu ma concevoir ñu jël yenn lieu de vote yi yóbbu leen feneen sans ñu xamal nit ki nga xamante te ni moo ko waroon a voté que déplacé nañu centre bi wala déplacé nañu bureau bi donc dafa doon yoo xamante ni si yu bari xew na am na nag ñoo xamante ni nee nañ caay-caayu politique la mais dama ni déet parce que kenn ku ne da am droit voter da am droit tànn ki nga xam te moom nga bëgg mu jiital nga dem ba ca jour ba ñu ne la tey nekkoo ci liste beeg dugg na fii génn na fee ba mujjoo voter ñu gis ci ñenn ñu bokk ci nguur gi kaa bi dal leen ñii ni bluff la parce que ñoom xamoon nañ ko bien avant dañ ko def uniquement pour ñeneen ñi nga xam te ni seen tour nekkul ci liste yi ñu ne voilà dal na ay ministre dal na leen et pourtant ci ministre yooyu wala ci ñeen ñi bokk ci nguur gi gis na ci ñoo xam dañu force def force ni dañuy voter par force ñooñu buñ dox leen noonu day mel ni citoyen lambda bi ki nga xam te ne bokkul ci nguur gi kon moom dañ ko minimiser ñu bokk le kaax yow nga forcé parce que ci nguur gi nga bokk man li ma gën a gëm sama avis personnel mooy ay am na tam ngi njaay dem na ci bureau de vote ma gisul turam ci liste bi pour man yooyu noonu ñoo ko tey parce que ku àttan def li xew nii yëpp ci élection yi san nga lu ne mais nag di delluwaat di waxaat sunu mbokk sénégalais yépp ñu delloo ci sunu xel gis nañ tey ñi nga xam te si ñoom lañu yaakaaroon génn nañ def ay déclaration yu am solo Idi def na déclaration bu am solo Ousmane Sonko sànq la pare déclaration bu am solo donc ñëpp ñu ngi woote jàmm kon nañ delloo suñu xel bàyyi lépp luñ naroon a def ñu delloo lépp ci loxoy yàlla doxal jàmm parce que jàmm moom lañ xam Sénégal bu ñuy wax dëkku teraanga pays de la teraanga dara taxul ñu koy wax Sénégal ku ne jàmm la ko xame donc nañ delloowaat. lépp teg ko ci loxo borom bi te xam ne moom rek moo mën moom rek moo mën te moom dong la nguuram dul jeex nguur yëpp ay jeex dëgg la cinq ans yàgg na yàggul mais ku mën a muñ sept ans war nga mën a muñ cinq ans bien vrai que ñaari muñu du bokk parce que bee début bi la woon et que ñun ñoo ko tànnoon par erreur te tey bii daf ñu forcer boppam pour toog mu ni du bokk donc encore une fois sunu frères yi sunu sœurs yi sunu yaay yi sunu papa yi tout ñëpp ñu da leen di ñaanaat ñu wàcce waat tension yi continuer dund suñu dund donte du mel ni mu doon mel wala du mel ni ñu ko bëggee woon mais tamit ñu delloo suñu xel ci suñu borom xam ni lépp lu am ci ndogalam la amee te yàlla lépp lu mu def benn ñi moo gën te comme gëm nañ ko nañ ko boole wóolu di ñaan Sénégal jàmm yàgg fi yàlla def bu ñu àggee deux mille vingt ak jàmm ki nga xamante ni si mooy toog mu doon koo xamante ni si du bett kenn mu doon koo xamante ni si nii dina yërëm population bi mu jiite ndax réew moom boo ko jiitee te yërëmoo ñi nga jiite dina metti lool parce que mooy jiit tuubaat di jégalu ñépp képp koo xamante ni sama vidéo bi wax ji ma ci wax laal na la maa ngi lay jégalu bu baax a baax lu fi dëng ngeen xam ni nit moo matul doomu aadama képp la lu ma fi wax tam naqari kenn maa ngi koy tuub di ko jégalu bu baax te ngir yàlla ñu bàyyi nekk ci réseaux sociaux di xuloo wala di saagante parce que sunu yaay yu ñu jur yaakaar naa mérito wul ñu nekk ci réseaux sociaux ñu leen di saaga donte ñoom ñu teg seen bët mais dafa ñaaw trop ñuy nekk ci réseaux sociaux di saagante ñi nga xam te ne ñoo koy def ngir yàlla lillahi wa rasuli ñu ngi di ñaan ngeen bàyyi ko bu baax a baax a baax parce que amul benn solo mënuñu jëmale fenn alors ñu ngi tuubaat di jégal waa du baax a baax wasalaam